ñi nga xamante ne ñooy ay prestataire yu nekk Senelec ngir ñoŋal seen nekkin ak seen liggéey fa leen a xamal renforcement ci wàllu financement <laughs> loolu baax na la mu gis lu baaxut moom l'évidence yéen kaay ca jëwriñ ju ñu dénk wàllu bitim réew mooy ak kafuyaas ak ndëngate ci doxalin laas yéen kaay na ko faalay ñaan ma lay raral sénégalais li nga bëgg a wax noonu Yaasin Fall mi ñu fal jëwriñ ju ñu dénk wàllu bitim réew fa ñoo seetlu na daal fa xam ay diplomate yu bëri yoo a delloo si Sénégal doxalin boobu nag fa yéem yéen kaay ñuy wax ay contractuel fañ leen delloo si Dakar secrétaire général ba fañ koo ko ak ambassadeur Xaar Diouf jëf loolu ni ki la le quotidien yéen fa xadd ba tey ci wàllu diplomatie ak tukki nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye fa koy xamal ni ki tey mu nga su fa baxee koo fay dem Guinée Conakry ni suba ñetti tukki lay xamal yéen a kaay bi yokk ci ne ñaar fukki fan ci weeru soin président Diomaye Faye fay dem France dafa faa nar a dajee ak njiitu réew bu France Macron wala fa jir yéen a kaay mel ni ku naan ko li ma xam daal mooy réewum <laughs> ngi ca naan ñi ja mooy ne président Diomaye Faye fa xamal lancement ab plateforme boo xam ne fañ ko tuddee jubbanti maanaam fay sàkku ci sénégalais yi kenn ku nekk joxe gis-gisam ci doxalinu yoon lépp ngir ñoŋal wàllug yoon àtte ci Sénégal waaye sénégalais yi tamit wax seen xalaat ci thème bi ñu war a waxtaanee ci dialogue national bi nga xam ne 28 mai 2024 bi lañ ko fas yéene xamal jëm ci xool naka la jubbantee wàllug yoon ba yëf jaar yoon li tax président nag Diomaye koy def pour askan wi la kon askan wi fa war a joxe xalaatam koo jubbanti ci wàllug yoon ñu jubbanti ko regard yéen l'observateur mel ni ku koy wax naan a jubbanti nag mooy yoo xam ne xamatul fa fi mu toll nii cadre APR yi na ko faala ci yokkal leneen loo a lijjanti te mooy doxalinu Ousmane Sonko ndax doxalinam ña ko waxee ci les si ko yéen a kaay Sud mel ni ku naan waa APR yi fa mel ni waxu opposant rek ngeen di wax waaye dëgg-dëgg dialogue national bii jëm ci wàllu seetaat justice yoon ni muy doxee ñu amal ci ndëpp national jubbanti ko loolu moo gën a nekk farata ci loolu la nag leveil yéen kaay na ko am na leneen sax lu mu def moom Bassirou Diomaye Faye lu gën a amati solo te mooy wàññi njëgu engrais gi ba tax baykat yi fañ cee kontaan bés bi yéen kaay ne njabootu sandarma bi ñuy wax Didier Badji ak nen sandarma bi ñu doon wax Fulbert Sambou fa ñoo porté plainte ci kanam àttekat ba jëmale ko ci baajaxate Diakhaté ak Ahmed Suzanne Camara ngir ñu andi ay leeral ci seen ñaari doom yooyu nga xam ne fa ñoo réer faatu nañ kenn gisul leen ñu leeral ko ak kàddu yi fi waxoon ba tax yéen kaay bi na hée mbiru Fulbert Sambou yi ak Didier Badji bii yëngatuwaat dee a rey xam ñu leen rey fa a leer di leer info yéen kaay ba mu wax ñu ko mooy nguur ak jomaay fay ak sonko gu bees gii xam nga fa ñoo jàpp baa jaxateeg imaam ndaw ci wax kàddu yu ñaaw ak yu teggiinu jëmale ko ci ay kilifa yu ŋànk réew mi waaye ñoom fa ñoo war a xam ne démb ñoo fi nekkoon ay opposant di wax lu nekk makki ak nguuram gi ñu leen daan jàpp tëj kaso léegi tey nag ñoom itamit ñoo ëlbatiku di tëjaate kaso ci même jëfin bi nag maanaam wax sa xalaat rek ñu jàpp tëj te ñoom fa ñoo war a xam ne liñ leble rek leen fii leen doon saaga makki ak yu ñoñom ba a xolaat seen doxalin wal fajir yéene leen voilà gis ngeen seen waa ji nag seen kilifa gi Macky Sall moom réewum France fañ koo artu na ko Macky Sall yow la waxal nekkatoo président bu Sénégal doxalinu politique réew maak nguur gu bees geeg yi ni mel fa ñu bëgg nga rocc sa loxo sa làmmeñ ba mu set wecc nag nekkatoo président rek taxul ngay galgal ña fa nekk ak na si pexe ngir yàqal leen jëwriñ ji ñu dénk wàllu microfinance Aline Dione mel ni ku naan wal fajiri yéen e kaay borom dëj bi mu mën naa jooy dëjëm seetaan leen ñu rek ak Macky ak ñi àndal faa seeni nopp de ndax kàddu yi ma dégg yee ñu créé ay emploi ñoom fa ñoo waroon doon mayee xaalis ci réew mi mu ne déetawaay fa yokk ne fa xam ñoo xam da fañ doon xam xaalis bu di ko jot ci état bi te ay politiciens ñoo leen ko doon régleel ñu jot xaalis boobu waaye politiciens yi fañ daan jilaat ñoom it seen wàll ca xaalis booba bala ñu la kaa jox loolu gis naa ko Bambey la mu wax moom Abbas Fall fukki dëggam ak juróom-ñaar jëmale ko ci ay ministre ak député benn bokk ah, def ngeen seen liggéey bañ a xool andi luy doxal réew mi ngeen wate ko bañ nekk diñu gàllankoor kon assemblée nationale bi mën nañ koo bañ a tas waaye bu ngeen di bloqué rek fañ koy tas ut député yoo xam ne bu ñëwee votel ñu ñu doxal réew mi te mooy a kaay mel ni ko naan ko hé Abbas Fall xaw ma fa ngay neexal di baab député benn bokk yaakaar xaw ma fa ngay nappaate waaye faale xamal leen gis nga ñàkkante mënta ñàkk diggante yéen waa APR ak Pastef ci assemblée nationale ba premier ministre Ousmane Sonko dem fa naan ma ngay def déclaration politique générale ci la lépp di leer bés bi yéene kaay fa xëy tey di ñu wax jaar-jaaram ak mooy kan l'observateur moom fa xëy ci parti bi di PDS seen doxalin ak ca lañ nekk enquête yéene kaay moom fa xëy addu ci jëflante diggante mairie bu Ndakaaru ak président Diomaye Faye nee na fi mu toll nii ci jamonoy observation ci la ñu nekk ñoom ñaar ku nekk ngi déglu moroom di xool yéen jéego lay séq jéego ya ñuy séq ñoom waa secteur privé bi mooy wax jëwriñ ñu dénk wàllu énergie xaalis bi nga xam ne état bu fa leen ko yoral Abdoulaye Sy ko wax ci Vox Populi na ko bor rek mi ngi ci 300 milliards ay arrière paiement a fay Birame Souleye Diop jëwriñ fa dalal seen xel ñoom waa secteur privé bi ci exploitation gaz ak pétrole bi ci Sénégal nee na na seen dal léppay jaar yoon Le Quotidien yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne Bah Diakhaté ak Imam Ndaw ginnaaw bu ñu leen jàllalee ca kaso ga altine bii di ñëw ci leen leen di attee Walf Fadjri yéen a kaay moom fa xamal ne jàngalekat bi nga xam ne fañ koo dóor ba mu dee ci xanam gu ñaaw muy Alain tax na mbootaayu syndicat jàngalekat yi ñuy wax G7 xam ne kenn du jàngale lépp ngir ñaawlu jàngalekat boobu ñu rey li nara rey nag xale jigéen yu bëri tey l'observateur moo seetal xale jigéen daal xamu lu ñu xewal li ñu wax opération esthétique maanaam xale jigéen yi nga xam ne fa xam ginnaaw gu rëy gu ponkal moo tax dem ñu leen di defal genre opéré jël graisse dugal ko seen yaram wi seen ginnaaw gi lépp ngir mu rëy yéene bi ne risque bi ci nekk nag mooy na fa lay rey yow xale bu jigéen bi hmm, waa ma ne xam nga démb rek waxoon naa leen ko fi bëgg boo solee tubay ñu ne farafet wala tay baas ak lu munti doon tax nga dugg ci wàllu opéré rek jël sa ginnaaw gi di ci def yoo xam ne fa lay mujj rey ana loolu ko fi jar nekk xale bu jigéen sew ruuj am wér gi yaram moo gën fukki yoon ak juróom nga dugg ci loo xam ne fa lay rey